salaamaaleykum man la Abbé Jean maa ngi leen di nuyu <laughs> di leen gërëm di leen sant wax dëgg yàlla <laughs> ñun de wax dëgg yàlla man de dama ko jàngat rek ci jàngatu sama bopp man ndax bu dul dara citoyen simple la waaye nag Abbé Jean bi ci ñëpp la mu ne mel na ngeen am imam rek wax dëgg yàlla kii nekk nooy man abbé la waaye si sama jàngat dama nekk ab boo xam ne dama moom sama bopp ci samay liberté de pensée dama gis ne ñoom daal. range doble bi kenn ken bañu ko de wax dëgg yàlla ndax Macky Sall bu demee ba daara Jolof ci éleveurs yi ne dafay defar loo xam ne dafay tol de Dakar ba Tëngéej wara lu tol ay kilomètres def ko àll boo xam ne xar yeeg béy yi ak nag yi ñoo ci lekk jur gi ah boo waxee xar wax vache wax li nga xam ne mooy nag wax li nga xam ne mooy béy waxoo jur gi ndax jur gi dafa yaatu de ginaar nga ci mbaam nga ci te ñun mbaam gi dañoo saf wax dëgg yàlla moo tax man abesa ma gis ne fan yi passé yëpp yi am ci ay pak yeeg yi am ci mbaam yi ndax mbaamu Sénégal gerees gi dafay bëri ndax kéet gi ñuy lekk moo baaxul ci ñoom waaye bu bu Burkina Faso bi ak bu Mali bi dootul am dafay cuq cuq cuq ñeex ñeex ñeex boo xam ne danga koy teg ci fóot bi mu ne cos gerees gi na caas nga daal day seex mu ne cos caas dafay nooy yooyu nag buñ ko buggee dooleel buñ ko buggee suuxaat éleveur amul éleveur xar kese am na éleveur mbaam ndax Jacob ak Jean Pierre ak Christine bi nga xam ne Moïse ak Pierre de Silva fii la daa dee ut ab conteneur mbaam boo xam ne war na yàlla douanier yi dañ ko koo taxé ndax mbaam yi jógee Guinée Bissau doo leen daqee ci àll bi du ñëw ci conteneur nga leen di ñu daa wat ci Dakar ndax du ñu du du mën a di di di <laughs> doo leen xam waaye yi yi yar mbaam xam ne ñu léegi nag ki Sall bu bëggee ñu ko cautionné ko ci li nga xam ne moom la def Popenguine bi jël na 24 décembre am na xew te mbaam de yaa 31 décembre am na xew te mbaam de yaa mbaam bi la gën a nooy gën a tuuti moo gën a seer kon suxat éleveurs yi nañ ci booleeg éleveurs yi nga xam ne mbaam moo leen intéressé race de doli am na race de Popenguine na ñuy ñaan su ko defee rupture de mbaam du mun a dara lu mbaam ñu mun koo tas fu ne waaye jël rek. wax dëgg yàlla dëkk la boo xam ne ñaan na torop Sénégal dialogue dialogue islamo-chrétien bi dafa dëgër dafa nekk loo xam ne amul lam-lame kon nañu yaatal <laughs> nañu suqali ndaw ku suqali fas suqali béy suqali nag bul fàtte mbaam ndax am na ñoo xam ne mbaama leen di danel di remercier nag ministre de l'environnement ndax dibiteri mbaam bu amee moo ñu jox autorisation ñu koy jaay ci gox-goxaan yi te islamiste yi nga xam ne ñoom la ñuy dekkal du ñu taxaw mbokk ne lu tax ngeen di def dibi mbaam ndax dialogue islamo-chrétien <laughs> yàlla na sax te bu ko kenn dindi may wax nag ne ko Macky Sall ras de dolli am na waaye ras de Popenguine war na am ndax ko yar ko yar xar yar ginaar yar li nga xam na mooy nag bul fàtte mbaam <laughs> moo tax ñu ne ñun dañ ko doon wayandoo ca ca ca buntu ba ñun xale yi nga xam ne dañoo dem ba àddina jël suñu lépp def ko ci abi waaye dañuy way yoo xam ne nit ki mën a delloo si bopp ci xelam ci suñu borom rey na foo naga taga ke kaago abesan avaxane abesan abesan abesan abesan Avara na ko Abeza Abeza mbaam ci la bokk de bilaay mbaam ci la bokk ak asaf te neex yàlla boo ko marine dëxinu mbaam cere mbaam oo ne fa kaka Abeza yaasa lay Abeza Abeza abe Abeza Abeza abe abe Abeza